Salam alaikum, sénégalais yi nekk ci Italie Sen Khalid Baye Diouf ñew tay tey dindi len waxtaan bo xamné mu ngi concerné ci mbirum euh, lolu ñuy wax assegno familiari moki yi euh, mbir mi waxtaan nañ ci euh, plusieurs fois mu nek lo xamné ne wax dëgg euh dañ ci war di ci parce que comme ni may wax suñuy problème bokul ak problème yi ñëpp ñu nekk ci réew mi looloo tax lepp lu ñuy def rek dañoo war di ci and di ci waxtaan euh, di ci gëstu mbokk yi lii moo tax radio defaral suñu bop taxaw mu nekk ci application Google Play nga xam soko télécharger rek dang ko am mën di ko mëna déglu en direct comme ñepp waye di tan tamit waxtu yi nga xam moko moom nga ko buggooy déglu nga déglu ko euh, di leen wax ne aussi mbokk yi am nañ sit internet ci euh, suma tour muy baydiouf point com waaye aussi yore nañ ko ci rajo defaral suñu bopp foofu tamit képp ku fa dem da nga mën di déglu euh, information pratique yi nga xam ne moom la ñuy bëgg di joxe waaw suñuy waxee nag assigno familiare ci la ñuy waxtaan tey di fàttali rek ne assegno familiare mbokk yi du dara lu dul euh, euh, euh, ndimbal loo xam ne gouvernement Italie ñi yore mbirum liggéey dañuy dimbale à travers IMS IMS mooy institut national de prévoyance sociale IMS dañuy jaar à travers IMS di dimbale liggéeykat yi nga xam ne dañ fee nekk dañoo yore jabar ak doom euh, ba noppi euh, am loo xam ne dañ koy yokk ci seen salaire di leen ko dimbale pour ñu mën toppatoo famille bi lii allocation familiale am na fii am na Sénégal am na ci réew yu bëree bëri am na fa waaye nag li nga xam ne moo ci nekkoon problème fii ci Italie moo di ne xam ngeen ni fii liggéeykat yu bëri yorewuñ seen jàpp seen famille yorewuñ ko fii ñu ngi leen yore Sénégal te famille boobu ñoom ñoo leen yore question bi nag nekkoon ndax famille ba nekk Sénégal euh, doom ya nekk Sénégal jabar ja nekk Sénégal est-ce que ñoo ñooñu am nañ droit ci mbirum allocation familiale mbir mi nag nekkoon problème bu bëri ñëpp euh, euh, di ko joytu yàlla def mu am information yu bees yu ci dugg ci yooyu lañ leen bëgg tey sottil xam naa dañuy def benn pause musicale rek dellu si ci waat kon nag bu leen sori waaw mbokk yi donc tey dañoo ñëw pour indiwaat euh, aggiornamento li ñuy wax mise à jour sur question bi nga xam ne wax dëgg yàlla euh, ñu bëri ñu ngi koy rencontré fii ci liggéeykat yi muy travailleur sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk fii su ñuy wax travailleur rek mooy travailleur euh, dépendant ñi nga xam ne dañoo am contrat de subordinato contrat de travail sub contratto di lavoro subordinato ba noppi di liggéeyal ay entreprise euh, ba noppi nag seen salaire xawa new néew doole euh, tuuti parce que wax dëgg yalla suñu familial nekul ne euh, ñi ay fayeeku salaire yu mat ñooñu wax dëgg yalla bokkuñ ci ñi nga xamne lañ ko gën jagleel moy ñi nga xamne sen seen doole dafa sen salaire taxul reuy noonu xamna naa ne après dinañ ci dikkaat pour wax yan jusqu'à quel niveau le nit mëna a am suñu familial waaw légui nak problème bi ci nekkon mbokk yi moo di ne comme nim ko waxee ci ben famille yi nga xam ne seen euh, famille nekkuñu fi IMS da doon bañ euh, euh, di leen fay parce que nee nañ képp koo xam ne yaa yaa ngi fi liggéey mais sa jabar ak say doom nekkuñ Italie waroo mën fay assegno familiare mbir mi nag comme ni ngeen ko ni mosoon nañ ko fi wax mu amoon benn décision bu tribunal de Brescia bo xamné dafa amone ay juróom-benn étranger euh, duñ ne fan sax nekkuñu ñëpp sénégalais pour ñakul ne ci biir ci juróom-benn yooyu ay sénégalais euh, ñu ñu IMS ñu ñu def demande bi IMS di leen fay tok ba si yàgg rek contrôler leen gis ne doom yeeg jabar yi nekkuñu fi euh, IMS non seulement mu ne def leen di da koy da koy mais daf leen di demander ñu rembourser ko ñu rembourser leen ñom ñëpp ñu rembourser xaalis bi nga xam euh, IMS doon na leen ko fay mu nekkoon nag wax ju uh, wax ju mag problème bu mag ñoom ñu dajaloo dem seeti avocat mu dem ak tribunal bañ demee IMS tribunal euh, tribunal euh, jox leen raison ne IMS non seulement waru leen laaj lam leen fay ba pare waaye dafa war continuer di di leen fay assegno familiare loolu du nekk mujj nekk jurisprudence waaye yàlla def na aussi leneen lu mel noonu am Torino kii moom ab sénégalais la sax le le la nekk moom euh, mu dem euh, def demande im si bañ parce que ay six famille am six doomam yu nekk Sénégal nekkuñu ak moom fii im si bañ ne euh, du ko ko fay yàlla def aussi moom it mu jël ab ay avocat ñu topp IMS dem ak moom tribunal tribunal bi jox leen raison

Ce tribunal décidé ben mbir mbir moomu day melni loi la manam dañ ci pour di régler problème yi nga am communauté parce que comme ni ngeen xamé loi mënul prévoir lepp mais ça ñobé ci mbir juge ci loi ak ci procédure ba les até bobu day melni loi la légui résultat até bobu day melni loi la jurisprudence euh, euh, di wax ne rek wax dëgg yàlla leneen tamit ne administration yi ñoom dañuy appliquer toujours li nga xam ne moo leen gën arranger loi bi dañ koy euh, interpréter ñoom li leen gën ci nim leen gën arranger looloo tax ñëpp war a xam ne mbir ñi nga xam ne ñoo yore administration yi di ñoom ñooy dogal en fin de compte ñiy dogal mooy fa mbaxana nekkee benn

te ñëpp xam nañ ne euh, euh, xat-xat yiñ yi su ma yebone sax <laughs> jalousie bi ñuy defal immigré yi dañoo bëri ndax contexte bi moo ko def ba tax ñu ci bëri yaakaar nañ ne euh, immigré yi dañ leen di teg coono di wax ne aussi en général IMS su bañee li muy wax daf naan la sa réew suñ Sénégal amul convention ak Italie tribunal nee na ko loolu lu euh, yoon parce que nag euh, convention diggante réew mu mel ni Sénégal ak Italie te amul su amoon lu ci bëri daf ñu yombal ci mbirum euh, retraite ci mbirum bonus yi ci mbirum assainissement familial yu bëri daf ñu yombal yàlla def na suñ réew ba léegi xawma lan moo tax ba léegi amul convention en matière de prévoyance sociale euh, diggante Sénégal ak Italie wax dëgg yàlla euh, ñi nga xam ne dañuy politique di yëngu ci politique wax dëgg yàlla loolu war nañ ci attirer suñu gouvernement yi pour ñu gaaw signer wax dëgg yàlla ça fait 30 ans plus de 30 ans immigration sénégalaise nekk ci Italie wax dëgg yàlla war na euh, convention boobu diggante Sénégal ak Italie ñu signer ko parce que lu ci bëri nga xam ne nag waxtu wi nga xam ne moodu yi fi njëkkoon ñu ci bëri ñu ngi commencé dem retraite foog naa laal nañ ñu teg carte sur table gouvernement Sénégal ak gouvernement Italie toog pour ñu am convention boobu am nañ ko ak France waaye nag xam ngeen immigré yi nekk ci Italie euh, wax dëgg yàlla presque toll nañ ñu nekk ca France ba noppi doole ji nga xam ne euh, immigré Italie ñu ngi koy def ci économie sénégalaise moo ëpp téeméer yoon doole ji nga xam ne immigré euh, sénégalais yi nekk France di ko ci def kon nag loolu ñuy wax. Euh, complexe vers la France war nañ ko bàyyi di ñaan suñ nguur yu ñu ñëw toog ak Italie yaakaar ne lu bokkul France rek baaxul waaye parce que fa lañ jàngee peut-être fa lañ euh, defee seen formation peut-être làkk bi ñuy làkk mais nag di wax ne rek dafa war loolu revendication boo xam ne ñun doomu Sénégal yi nekk fii ci Italie euh, dañ ko war a def pour suñu réew mën toog ak autorité prévoyance sociale yu Italie pour que problème yi ci nekk yëpp bari nañ am naa ne di ci nekk dina ñëw ñu génn ci bëri na mais nag ñu caytu ko pour euh, trouver solution waaw mbokk yi donc loolu mooy li nga xam ne mooy li xew di wax ne nag euh, mbir da koy jar parce que nag da koy jar képp koo xam ne euh, nekk nga ci situation boobu wax dëgg yàlla daf lay jaral yëngu bi ñun liñ ci mën mbokk yi mooy taxawal syndicat bi ñu wax syndicat autonome Euh, des travailleurs africains dans le monde parce que daf ñoo wóor ne am na ay problème yoo xam ne ñu ngi koy dund keneen mënuñu ko toppatool yeneen syndicat yi wax dëgg yàlla jàmbaar lañ ci lu bëri waaye ñoom mënuñ particulariser problème bi ñëpp la ñuy xeexal euh, parfois ci xeex boobu ñuy xeexal ñëpp euh, dafa am ay problème particulier yu concerné communauté yi yoo xam ne duñ ko mën prendre en charge te comme xamuñ parfois réalité suñu réew xamuñ bu baax réalité suñ communauté li rek moo tax ñoom munuñ di ci sori euh, ñu gis ne nag euh, amul benn syndicat bu mën régler problème yi nit ñi bu ci nekk il faut que nit ñi booloo euh, problème particulier yi ñuy am ñu xeex ko parce que nag suñuy wax xeex ñun waxuñ dem di manifester waxuñ dem di déclencher ay grève euh, ñun suñ benen arme de lutte moy sensibiliser nit ñi ci seeni problème and euh, ci waxtaan ci dox ci dox ci surtout waaye nak lolu bala muy am il faut que nit ñi ñëw japp ci bok ci adhéré ci euh, mën cee dox barke semaine dernière ñi ngi dans le sud ca Fodja fek fa doomu sénégalais yi bëri nañ fa doomu africains yi bëri nañ fa di liggéey ci tool yi te parfois dund ba ñuy dund wax dëgg yàlla ñu nekk ca kaw syndicat yi parfois politique sen recherche de visibilité ak politique syndicale day jàpp syndicat yi yooyu ba nga xam ne problème particulier yooyu duñ ko mën prendre en charge ñun nag grève wuñ manifester wuñ ñun dañoo bëgg di informer nit ñi dañoo bëgg di taxaw nit ñi suñu ko moyen yi maye mais moyen yi pour ñu am ko il faut que nit ñi adhérer jënd seen carte bokk ci lii mooy syndicat autonome des travailleurs africains dans le monde lii mooy syndicat autonome des laboratori africani del monde kon nag du ma sonn ci di ko euh, euh, wax nit ñi am na suñ mbokk yoo xam ne dañoo à chaque fois suñuy demande disoccupationné dañ leen di laaj ay këyit chaque année ñu leen di laaj ay këyit ci beneen dëkk bu nekk Toscana ba nga xam ne wax dëgg yàlla décidé nañ pour dem fa rencontrer leen dem rencontrer waa IMS pour waxtaan parce que nag gëm nañ ne tamit Euh, négociation ci réew mi négociation bilatérale maanaam ku travailleurs yi ak euh, institutions yi yaakaar naa ne solution euh, da ciy am sans pour autant créer conflit loolu mooy suñu arme de lutte loolu moom lañ gëm ci liggéey bi kon nag di leen wax ne mbokk yi képp koo xam ne nekk nga ci cas boobu wax dëgg yàlla ñun taxawal nañ service boo xam li ci war dinañ ko mën dox waaye nag wax dëgg yàlla il faut nit ñi nga nga ñëw ngeen ñëw adhéré bàyyi téléphoné bi rek téléphone rek di laajte renseignement waaye aussi ñëw euh, adhéré ci syndicat bi loolu wax dëgg yàlla luñ loo xam ne dinañu may ñu mën dédicaré suñ temps parce que temps bi ñuy dédicaré di communiquer ci rajo bi wax dëgg yàlla euh, du lu tuuti suñ ci naree bokk di euh, dem ci institution yi ci administration yi di voyager te wax dëgg yàlla adhésion yi bëriwul loolu day day xaw a doy waar di wax ne rek macha allah euh, toll nañ presque ci trois cent personnes yu adhéré ci syndicat bi à peu près euh, xam naa ne euh, il faut plus pour ñu am moyen nga xam ne ci loolu rek la ñuy nekk di xëy bërki démb ñu ngi doon def benn waxtaan ci problème xale yi ñuy nangu ci famille yi ak problème yi business biñ ci dugal ñenn ñi dugal loolu nag day wan tamit ne wax dëgg yàlla il faut ñu jóg. di ci mën dox am am nay spécialistes yi yëngatu comme suñ jigéen boobu ñu invité woon muy awakan bërki démb waaye aussi am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi am na yeneen association mais luñ jogul dox ko rek wax dëgg yàlla euh, euh, day euh, yàqu day indi problème waaw di wax ne danga ko suñ mbokk moomu nekk Torino mu jaraloon ko mu dem ci ay avocat ba gagné ci bañ fay ko vingt neuf mille euros parce que non seulement dañ lay fay mais juroomi at yi mujj suñ la ko fay tamit dañ koy rappel war la fay foo naa ne ku toog ñu fay euros wax dëgg même soo xaar cinq mois 6 mois 1 an naa ne jar na ko lu lu sootu sax ëpp na gën ëpp na jar loolu kon nag mbokk yi lii mooy mbir mi di leen wax ne euh, suñ Milan internet ak léegi fu a nit ñi mën a wax suñu suñ euh, euh, mbirum administration comme ngeen na ngeen ko xamee nekkul lu gaaw parce que da ngay ñu tontu la nga bindaat ñu tontu la euh, nga topp ci rek ba yàlla def solution da ci am lii mooy mbir mi donc di baamtuwaat rek ne euh, sentence yooyu lu mu wone sentence yooyu li mu wone moo di ne muy décision tribunal boobu li ñu li ñu wone moo di ne képp koo xam ne am nga carte séjour nag lañ wax wala cittadinanza sa sa famille suñ fi nekkul nekk Sénégal Euh, euh, wax dëgg yàlla euh, IMSS daf la allocation familiale assegno familiari en général dinay dem ba euros par enfant foog naa ne euros su dee juróomi doom nga am wala su yokkoo ci bulletin de pay wax dëgg yàlla dara gënu di disponibilité képp koo xam ne bëgg na ci mën nañu contacter ñu waxtaan ci ñu dox ci kon nag mbokk yi lii laa leen indiloon di leen gërëm di leen wax seen xarit Baye Diouf depuis Milan di leen wax ne mën ngeen jël euh, télécharger application bi ci Google Play su ngeen tàppee Baye Diouf rek da ngeen gis application bi ak suma photo ngeen mën ko télécharger mbokk yi ñu ngi leen di gërëm seen xarit Baye Diouf ba beneen yoon jërëjëf.